Joma Fall. de M. et est demandé dans la main courante. Donc, euh, voilà, mademoiselle, monsieur, euh, bonsoir. C'est la finale la zone Test, test mikro.

ñi nga xamante ne aussi tamit ñoom ñooy les autorités ñoom ñooy nuyu ñi nga xamante ni ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy les autorités ñi nga xamante ni ñooy pareil ñoom ñoo gis noonu ñuy nuyu jour yi dañ leen toujours di maa ngi gis aussi tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy si ñoom ñooy les autorités

donc dina am du am waye aussi tamit tay final bi amna na. non noonu yéen gis tableau bi aussi tamit ñi ngi ko di ko présenté maa ngi gis ci euh, benn côté bi euh, waye euh, Comico 5 supporter Comico 5 ñi ngi zibilé ñu di Medina ko ci tamit ñom tamit ñi ngi zibe Medina Bambilor mo mo sol moy vert et blanc Comico sol mooy. Il y euh, a maintenant un zone bleue, bleue zone, là, comme on a tout dit. naa rek quelques quelques minutes kii di arbitre bi daal joxe coup d'envoi quelques minutes rek kii di bi mu daal euh, joxe coup d'envoi entre euh, Médina Bambilor euh, ak ki nga xamante ni moom mooy ak ki nga xamante ni moom mooy Comico 5 gis waa Comico noonu joueur yu Comico ñi ngi dem euh, seeni supporter euh, si supporter waa euh, Comico ñu nekk non zoria dal dem si ñoom jibile mëna may confiance ñi xamanteni ñoy ne supporter yi tay final bi du yomb entre Comico aha ke xamanteni xamante

yoko confiance en supporter nañ ñoo je ku si nekk simeeku nañ ñi ah, sala ah. mooy ah, zone bleu, mu suis moy bleu zone la Tu yi nekk li xamantene xamante ne bleu ko si nekk bleu am très très zone ñi xamantene ñoy ne ñoom mam lo ko ci aussi tamit ñoom ay verte lañ sol am weex a sol tuwa yu weex am ay kawas yu verte am ay traits traits yu blanc loolu mooy euh, équipe bi si nekk donc wax naa la mooy nga sol mooy bi euh, nu mel wax gis onze partant yu euh, comico cinq ñoom ngeen gis noonu ñuy fatawu ci beneen côté bi aussi tamit euh, am nañ ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, waa na Mamlo ñoom tamit ñu ngi taxawa aussi tamit di ñaan seen ab ñaan di def seen i débat débat di xarfa fufa

di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di bëgg ñëpp di nuyu aussi tamit euh, donc euh, moom mooy euh, DG général bu Fall Inco Elou Fall ñu ngi ko siyaar bu baax a baax a baax di ko nuyu di ko jox waa ci waayam di ko ne yàlla yàlla defal jàmm fi nga nekk moom kenn du moom donc buñ ñu demee ba lii yëpp yem ku si nekk kontaan si ñu di seetaan Fall Inco yëpp seetaan si kontaan si Fall Inco TV. donc lépp Elou Fall ñu ngi koy siyaar baax a baax a baax di ko jox wàcc waam fee mu nekk mu ngi nekk Guy Murit jàkkaarloo Sococim mu ngi nekk Guy Murit jàkkaarloo Sococim ñu ngi koy siyaar bu baax baax a baax di ko nuyu leen di bàyyi euh, tuuti ambiance lañ leen doon may ngeen daal di déglu ambiance euh, waa Comico waaye waa Medina Mame Lo aussi tamit euh, ñoom dañ na tekk dafa guñ dara quelques minutes rek arbitre bi joxe na courant va bi une minute de silence Nous, sommes ngi noonu de silence ah, lañ doon def aja convoi déjà parti waa mairie de Bambilor Nous ñoo sol li xam vert et blanc waa comico sol jaune bleu waa comico ñoom ñoo war bal noonu nañ ko seen waaw ko jël nañ bal bi euh, dóor ko si tuus seen sëriñ loolu la leen sant tous du côté euh, de Medina Bambilor euh, corner numéro 5 Abou Komiko mo génne bal bi bal bi dem corner directement pour l'instant corner pour euh, mettre le même attache na Balbi. Nous ñu contre ko oh, oh là là contre euh, mu dorat ka balbi directement sur 750 euh, du côté de Comico.

di wax rek ne na li tax mënuñoo waxaat turu équipe bi ah. ku si nekk sa jour ñi jaar si tur yi donc amuñu feuille de match bi bu ñu amee feuille de bi rek allah rabi donc ah, dinañ leen ko dégtal fii si ah, Falnco TV ñu ngi jégal waat rek bu baax a baax tous du côté de Comico Comico euh, toujours Moulzier l'on passe directement au niveau 11 bu Maïdou Bambilor daal di récupérer bal bi daal di jouer ñu récupérer waat ko si moom euh, arbitre nee na jouer dara amul euh, léegi numéro 6 mu daal di koy jox le numéro 12 capitaine mu daal di jox la numéro 3 mu ñëw ko si ginnaaw jox ko latéral gauche pour bu Comico 5 mu daal di jouer dugalal ko profondeur mais finalement dañ ko mujj arrêté ba léegi dugalal ko profondeur directement si numéro 2 bi mu dugalal ko profondeur directement si numéro 17 bi mu daal di attention oh là là bonne euh, défense euh, du côté euh, de Medina Mamilor. Medina Mamilor dans le défense, l'on passe directement sur Accentré gauche pour Medina Mamilor. Medina Mamilor toujours gêné devant mais personne. Personne, nous dans le thé, nous sommes waa Comico daal di ba léegi wa Comico ñoo jé bal bi ñu gis dem si kanam toujours jox na ko góol bi góol bi daal te gazé moom tamit euh, néew fa sax di fa téye néew sax di téye ah, xam na ni bu téye risque la moo tax mu dégagé bal bi carrément néewul sax di ko téye moo tax ah, téewul sax bal bi. tous euh, toujours gêné euh, nañ carrément ñoom waa Comico ñëw euh, si génne bal si tuus yi numéro 5 bu Mbendamba Mbilor doo di see ñu arrêté ka daal di koy récupéré ñoom waa Comico toujours numéro 11 bu Mbendamba Mbilor def na profondeur directement si numéro 17 mu daw attention génn na génn na bal bi génn na 7 50 côté euh, de Comico 5 waaw Comico wax rek euh, waa Comico ñoom ñoo nekk camp yu féete euh, diggante asalema ak déggoo waa Médina Bambilor nekk si camp yu féete ASEC Ndargu wa noonu la kenn ku si nekk foofu lañ la yóbbu fi ñu la féetale rek foofu nga dem waaye toujours Médina Bambilor def na benn centre numéro 5 mu dem directement si numéro 18 bi mu daal di téye téye contrôlé contrôlé mu daal di def centre ñu daal di koy contré numéro 13 bu la moo téebal jox droit bi numéro 7 bu Comico perte na ko.

ça pour l'instant du côté de Comico. Numéro 5 pour Comico, Momo Tebal non du tous pour l'instant. L'on tous, on est directement sur euh, numéro 7 euh, du côté euh, de Mbendem Babylon, toujours à Comico d'Arc récupéré à lui tirer. À lui tirer à Koufran, voilà là. Parce que le Mbendem Babylor, dans le xëy na bal bi euh, moo ko dal moo tax mu daanu oo oh, nañ les croix rouge et les sapeurs pompiers ak médecin euh, bu euh, Médina Bambilor mu oog ne leen kaale xool seen jour ñëw nañu xool ko arbitre bi leen indi delloo nañ ko si arbitre bi jël nañ ko rapidement waa comico ñëw tee bal noonu dugg na profondeur hors a du côté euh, de Maine Comico. a du côté de Comico. Pour l'instant, 7 euh, minutes Toujours 0 euh, partout entre Comico et Arquerante, Mamay Maine Mamilor. Collègues, jeunes rapidement, Maine Mamilor. Nous joxa nañ ko goal bi goal bi dafa long dégagement directement sur numéro 4 bu comme ko ñu té bal ñu numéro 3 bi daal né dégager bal bi dem directement sur même leur comme ko daal té mbeuk bal bi bal bi génn tous wa waaw comico tëpp nañ mbeuk bal bi bal bi daal di génn tous directement ñu daal di jël bal bi tous touche ñu jékka directement góol bi c'est-à-dire defaat long passe mu dem directement sur latéral 3 du côté de comme Modina Bambilor toujours waaw Modina Bambilor ñëwaat bal noonu di dem Modina Bambilor toujours ba léegi ah Modina Bambilor moo yor bal noonu numéro 4 bi Modina Bambilor Modina Bambilor attention jéem directement sur numéro 5 ba léegi ñu koy euh, baajante joxante sa attention centre na la ba léegi attention. attention Sandra Mourem directement sur le bi góol bi directement toujours Wa Comico ñëw teebal noonu di doxal la directement Wa Comico def passe njër récupérer. récupéré waa mel récupère. Dalke récupère passe directement sur numéro 17 a du la profondeur attention attention oh là là première occasion du côté de Medina Mamlo. Nouvelle occasion du côté de Medina Mamlora. Le numéro 18. Numéro 18 pour Medina Mamlora. Moko 2, Mourombo, euh, Potabia. Mais heureusement, heureusement, dans Rombo euh, tout Touti. Zénin rapidement, Belégui. Euh, coup franc du côté de Comico. Coup du côté de Comico.

Bayu malen aussi tamit ah, neena len yeen duma ah, len ah, ma muko yeen yi nga xamanteni ni yéen a bitim rew beug setan li nga xamanteni mom moy netan nawetaan yeen ngay setan fi ci fal enko TV di la war rek donc ngeni di bus di beus cloche bi wala ni partager di beus li nga xamanteni ne moy cloche bi lol daf may nexa di ci yokay keur man daal l'essentiel que cloche bi na kay gis na di gis cloche ngeen zeme aimé da leen Mb. Je rapidement toujours numéro 7 Pour Medina Mame je directement sur latéral droit mu daal perte perte tous Nous passé j'ai tous directement du côté de numéro 4 profondeur mais finalement numéro 13 bu Comico

ba léegi ah, waa comico ah, waa Médé même looxa ndam demul ndam dikkul kenn dugalagul sa moxam dara long passe directement sur numéro 17 ah, mu daal di koy jox borom tentre bi ba léegi ñu coup franc coup franc pour l'instant

également euh, du côté euh, de Musée à Medem faute. Coup franc du côté euh, de Medem Mamelor. Comme nous dégagé Balbi, Balbi directement sur Medem Mamelor. Nous avons eu 4 Balbi. Albi tirer le coup franc, nous avons le dégagement directement sur nous 17 coup franc. Coup franc pour l'instant du côté euh, de Comico. Coup franc du côté de Comico. rapidement sur le numéro 5 bu Comico moom moo bal noonu war di koy joxe euh, si digg bi daal perte attention ar bi lu mu neen dara amul euh, attention korosete na korosete na daal di ñu contre ko attention naawal na ko naawal na ko oh deuxième occasion

yoote bëri na waaye waa comico ñoom aussi tamit donc à chaque fois maintenant Bambilor day jël bal bi di ko yóbbu seen gaa mais fois ci ñoom ñu ngi yor bal arbitre bi fois ci ñoom ñu téye ñu daal di jouer arbitre bi tiré leen li nga l'on passe du côté de Comico ñu il di koy mbëkk bal a dem camp de Médina Il ñu le passe de tous tous euh, pour l'instant du côté de Médina de j'ai rapidement directement sur capitaine de Médina jox na numéro 7 bi mu attention tout le profondeur euh, oh là là ba léegi ah, waa Medem Mame Lor ah, ak ah, waa Comico ku si nekk donc yaa ngi fexe def le noo dugale waa ku si nekk yaa ngi rate occasion ku si boo tiimee kan da ngay rate dama yaakaar ñoom ñaar boo ab sëriñ ba léegi ñu ngi see waa Medem Mame Lor ñoo teebal noonu dégagé nañ ko waa Comico daal di koy dégagé tous tous du côté de Medem Mame

côté bu Médina Bambilor ñom ñoko té di doxala Médina Bambilor ñoom ñoo bal di numéro 7 bu mo bal profondeur attention mu directement ci goal, bi. dem directement ci gol bi gol bi daal di def mom tamit def non dégagement du côté ah, de Comico daal directement sur numéro 2 numéro 9 daal récupérer waat daal di jouer devant toujours ah, coup franc. pour le moment. góolu yo euh, mbir Bambilor moom moo daanu noon si suuf at bi mu ngi koy dem xool bu fekkee mën na jog mu bañ a oo sapeur euh, pompier les croix bu fekkee mënul jóg nag euh, mu daal di dem oo ñi nga xamante ne ñoom ñooy sapeur pompier ak Croix-Rouge ñi ngi mu ngi noonu oo na ñu xool góol bi lan moo ko jot ndax mun na GA wala munul eggali ba a match a démarré waan na a di ah, Maïda Mamilor ñoo ñoo teebal di doxal ah, Maïda Mamilor toujours ah, ñoo teebal noonu di doxal récupéré nañ ko waa Comico daal di koy récupéré waat waa Maïda Mamilor daal di koy récupéré waat numéro 11 bu Maïda Mamilor jox na ko directement sur numéro 4 mu daal di ñàkk bal bi waa Comico daal di bal ñoom tamit joxante nañ ko seen biir ñàkkaat qui bu ñàkkee kii qui vous bu récupéré récupéré bu ko profondeur directement sur numéro 5 comme toujours attention à même même l'or ñu le corner arbitre 5 mètres 50 arbitre À 6 ah, mètres tire tiré arbitre ah, Simet euh, le tiré du côté euh, de euh, Comico. Toujours amène même le passe directement sur des défenseur du côté de même' amee na mam loxo daal di jël dégagé waat bal mu demaat seen ab camp naka dégagé mu war a dem camp comico la dem te profité wax rek ne ah, ah, ah, ñu ngi waajal suba incha allah rabi suba ñu ngi waajal suba rabi zone 1D final zone 1D ASEC Ndargu Ndaw ak kii di mooy renaissance final euh, bu nar a neex final boo xamante ni euh, donc euh, tëngeej ñëpp a koy xaar waa Renaissance dama leen romb ñu ne ma final du yomb dañuy ñëw jël li ñu moom daal di koy yóbbu fi xam moom mooy Renaissance daal di feetu waa ASEC Ndargu Ndaw ne ma final bi du yomb ñun ku ñu xam xam ne ñun buñ ñëwee si stade bi dañuy yëngal te ku buñ fi teg jamono ñu toll nii ku buñ fi teg ñoo ko moom ma ah l'essentiel que lépp importance mooy que affaire bi kaf la foore sport la leneen euh, lu si rax donc doonatul sport neen ko football la si kaf football ko si fo football ko si ree ñoom ñaar ba léegi euh, dem nañ directement sur attaquant bu euh, mel ne même loo xam ne waxoon daal da koy perto ndax da ngay perte moom waa Comico daal di téye bal daal di siiwaat toujours mu dem directement si numéro 11 bi daal di koy récupéré waat daal di koy récupéré waat waa Comico waa ah, ja Bambilor ñu ngi see taakale nañ ko arbitre nee na dara dugal na profondeur mu daal daw daw na taakale nañ ko numéro 7 numéro 7 ah, bugg mais de Bambilor ah, moo ko taakale bal bi génn.

xamul fi bi nekk mu tourné rek euh, faute bal bi bu génne si surface bi loolu faute la bu génne si surface bi loolu faute la doonatul euh, jouer foofu règlement bi nangu ko règlement bi a euh, nangu ko règlement bi dana ne boo génne sa biir surface ba jàpp bal la loolu da nga ko fët laa tiré 23 minutes de jeu toujours 0-0 entre Comico ak Medina Bambilor Comico Medina Bambilor toujours 0-0 jeegum nañ 23 minutes ndam kenn dugalagul sama xom dara jour bu Medina Bambilor moo daan noonu si suuf onañ les Croix-Rouges et les ñu ngi xoola xam lan moo ko jot waaye ni may waxee yéen am na benn jour bu mel ne Bambilor bu échauffé wu xam naa daa mënul àggali instant toll ni que gaañ bi bu tollee benn moment dootoo àggali li nga xamante ne moom mooy match bi il fallait que ñu def si yow changement ngir nga mën a génn mënaat mémoire bi nga perton nga mën a jëlaat li nga xamante ne moom mooy sa mémoire daal di koy garder coup franc du côté euh, de Comico à 5 ñoom ñoo am euh, coup Comico à 5 ñoom ñoo am Nous euh, franc la xool lan lay numéro 13 ak ah, numéro 5 Momo moo nekk si bal bi mu ngi noonu kon changement changement du côté de. mais même loowa ki gaañu léegi moom moo génn mënutul àggali ki gaañu léegi moom moo génn mënutul àggali masi bi ñi daal di def changement si moom numéro 7 bu euh, mel na même loowa moom mooy euh, génn numéro 6 bi moo dugg numéro 6 bu mel na même loowa moo dugg waaye numéro 5 bu mel na même loowa moo toog. premier changement du côté de Medina Mbambilor joué nañ ko rapidement oh là naawal na bal bi dañ ko taajal la mu dóor mu dóor bal bi a ah, bal naaw ba léegi ah, waa Medina Mbambilor ñoo tee bal toujours euh, Mme Mable jox le numéro 8 euh, latéral euh, droit pour daal di rapidement Mme daal di Personne perte perte nag numéro 17 bi lañ ko dugalee mu daal perte tamit mu directement sur numéro 7 dougal dugal profondeur toujours latéral droit pour Medem Mable mu daal contre la tous du côté de Mme Mable tous du côté de Madame Mable tout ça pour l'instant du côté de Ména Mamlor waa Ména Mamlor ñu directement, soit à Comico, directement Comico à Comico Il coup a arbitre touché nga joué euh, nga rapidement waa Comico numéro 4 bu Comico moo def centre mu dem ñu daal di directement sur euh, numéro 8 euh, na profondeur directement sur numéro 17 bu Comico def centre retrait attention ba léegi doon na bal oh oh waa Comico mel ne maam loo ñëw bal noonu touche.

Bamba Deme am loxo ñoo téye seen bal la 29 minutes de jeu toujours 0-0 euh, entre maintenant même lo à Comico ku si nekk euh, yaa ngi xëcc jéem a dugal ku si nekk aussi tamit yaa ngi euh, rasta seen camp doo sa morom du a dugal waaye ku si nekk boo resté say camp ba sa morom du a dugal donc loolu est-ce que Euh, l' essentiel que balaa ngaa dem di dugali jéemal xool na nga taxawee say camp ba pare ba biiru fa dugg nga doog a dem dugali. wax ne du côté de Mbène Mame Lora tiré na ko mu da kaa dóor ñu daal di koy euh, contrer corner euh, pour l'instant du côté de Mende Mamlor tiré na goal bi génn na box quoi goal bi génn na box bal bi mu dem directement si tuuti dem na directement si touche ba léegi euh, ñu dem euh, téewaat bal bi euh, daal di jéewaat ba mel ni maam loxo ñu daal di jé toujours dégagé nañ ko dégagé nañ ko mu dem si camp waa mel ne maam loxo téye na bal bi luppee mu daal directement góol bi daal di contrôler daal di taxaw xool baax ñu joxe ko ba fan moo baax ñu joxe ko ba jéem na rapidement ñu ngi jéem waa mel ne maam loxo ñëw téewaat noonu ak central bu Médina Bambilor ñu ko diis bu Médina Bambilor moo tee jox na directement yow ni ma mu dugal profondeur est que lool di nga ko mën a jàpp eh, doon boo ko jàppoon doo ko a jàpp passe bi sori. long dégagement du côté directement si góol bi góol bi daal di rapidement. du côté de mena lo wa mena lo ñu té du jé jé nañ ci kanam wa ñak nañ ko ñu daal ke récupérer wat numéro 4 bu mena lo ko ñak nako ñak nako mu dem euh, ci wa comico ñu ñakar ka toujours euh, numéro 4 bi moy récupérer bu récupérer buñ ko joxe bu daal kay ñaka lool moy kuma jox bu ma ñaké dama dem récupérer da ko lay mu ngi jé numéro 18 euh, bu mena mamlo té bal bi corosete daal kay ñaka wa comico daal ci daal di jouer devant toujours euh, Comico Comico dugal la profondeur ko ba léegi ñu ngi jouer moo yor bal noonu jox la ko numéro 17 numéro daal di def aveugle loolu lañ naan aveugle passe daka passe aveugle la jeu nañ ko rapidement toujours euh, waa Comico ñëw téye bal bi noonu di dox waa Comico ñu ngi dem si kanam téye na bal bi ñu ngi jouer bu ah, Comico jox na bal bi ah, ak central ah, bu Comico mu daal di jël directement suñu numéro 17 bu Comico ñu ngi daw dugg na profondeur arbitre rendre à retrait attention oh là là directement sur le gardien directement oh là là ñaari góol yi nekk yaa ngi génne ay bal de yaa ko waa Médina Mame Lo ñoo bal bi ñu ngi dem ñàkk nañ ko waa Médina Mame Lo daal di koy ñàkk Comico récupéré nañ ko am na joueur bu daanu joueur Comico bu daanu arbitre moom lay dem di xooli waa tamit ah, joueur Comico jour bi Medem Mamilo moom mooy dugg si camp yi am lu mu fa doon taj waaye fexe na ba dugg fexe na ba dugg fexe na ba dugg euh, li nga xamante ne moom mooy euh, camp yu euh, Medem Mamilo camp yu gorom Medem Mamilo seen attaquant bi fexe na ba dugg si camp yu Comico. tous. Corner. Corner du côté de Comico. C'est la tête, non. finalement mu Rombo, di Momo li nga xam ne moom mooy ce côté quand tous balbi bi euh, tous pour l'instant, du côté de Mme Mamlora, je que rapidement, ouais, Mamlora, nous tous coffrant, coffrant du côté de Mme Mamlora. 36 minutes, 2 toujours 0-0. Mme Mamlora, 0, Comico 0. l'on passe directement sur le numéro 17 bu mën bu gorom bu Comico daal di joué directement waa Comico daal di waat ba mu ñàkkaat ko récupéré nañ ko daal di koy ñàkkaat waa mel ne maam la aussi tamit daal di waat ba mu daal di koy dégagé si àll ba nañ ko si àll ba daal bal bi daal di joué toujours waa Comico ñëw te bal noonu tolloon na naka mu dem directement si. Euh, Coup franc. pour le moment. Coup pour Pour l'instant, du côté euh, de Comico. L'on passe toujours à la comité. Tarikay, top, Tarikay, Waché, c'est à mu rek di jouer directement faral di def ragal nga am si saatu dënn ba bal yooyu boo faral di wàccee sab dënn damay ragal nga amee saatab dënn gérer nga rapidement góolu bu mbir na mam loo dégagé na bal bi bal dem euh, si euh, tuusi waa comico daal di euh, moome ba léegi ah, ñu ngi joué ah, waaw mais de même loo ñu ngi joué ñu ngi koy joxante seen i camp seen surface lañ koy joxante bal bi loolu boo koy faral def buñ ko këfee nga am problème waa dégagé nañ ko mu génn seen camp waa comico daal di koy dégagé mu génn seen camp. Ah, ñu ngi joué toujours waa comico ñàkk nañ ko numéro 9. bu mel na maam Lo moo téye bal noonu jox na ko numéro di jël directement sur latéral gauche bu mel na maam Lo mu daal def long passe mu dem directement sur numéro 17 mbëkk na ko waaye ñaakaan nañ ko ba léegi ak central bu ku Comico moo téye bal bi daal di jouer directement toujours la tête mais finalement mu dem dem na directement sur waa Comico waa Comico komiko ñoo teebal noonu j ah, ba léegi ñu ngi daw ñu ngi ma maam looxo ñoo teebal na numéro ans bu mel ne maam looxo am na numéro bu mel ne maam looxo mu ngi dem mu ngi dem nangu nañ ko si moom ah. ba léegi mu daal récupéré waat bal bi coup franc franc du côté euh, mais de Bambilor waaw Bambilor ñoo am euh, coup franc noonu Bambilor euh, Comico l'on passe du côté de la tête non coup franc faute de main faute Abibiya euh, de Melo waa Comico daal di teg seen bal di waaj a dégagé bal bi génne nañ ko rapidement sur latéral gauche bu euh, Comico euh, numéro 10 bu Comico génne bal bi dégagé ko bal bi di dem si touche directement. ba léegi laaj rek ne leen suba incha allah rabi ah, match ASEC Ndargu ah, Ndaw ak ki nga xamante ni moom mooy renaissance match bi ñaari ñaari la orso la nga fanaan foofu daal di fay yendu daal di fay fanaanaat munul ne arbitre nee na boo xësee ba fanaan ba yendu fa jaratul fanaan génnal fa yor dee ka boo moo ka match ASEC Ndargu Ndaw ah, ak ki mooy renaissance suba ku mu jox score match bi ñaari ñaata loolu laay laajte Massi Asec Ndargu Ndaw ak ki nga xamante ne moom mooy renaissance suba ku ma mën jox score renaissance Ndargu Ndaw suba du yomb final la final bu nar final boo xamante ni tënkee ñëpp a koy final boo xamante ni waa zone 1D ñëpp a koy xaar na ko dem na directement si góol bi bi daal di koy jàpp waajal dégager mm, ñu ngi daw. muy dama muy xool la amul mu war a def teg na bal bi si suuf teg na bal bi si na ka rapidement si capitaine bi capitaine bi daal di joué daal di xuus xuusaat daal mu dem directement sur niveau ak central bu mu daal di koy mu daal di koy dégagé waat mu euh, dem directement sur niveau 17 dégagé na ko. moom euh, défenseur central euh, bu euh, Comico dégagé waa na bal bi xamul na dañoo bëree tous pour Médina Mamekh toujours waa Médina Mamekh ñoo téebal noonu di doxal di a ñàkk na ko récupéré nañ ko waa Comico wàcc na bal bi si ginnaawam heureusement heureusement joli contrôle du côté ah, de Medina Bambilor ñu ngi dem ñu ngi dem ñu ngi dem une deux une deux daal di dugal ci lii la football bi laaj lii mooy football lii mooy football coup franc laay la naka jaar di joxe am teel mu joxaat kaka mu nekk am téewaalaat ma ma dem mu dak ka joxa mu daal di dem ñu daal di yóbbu bal bi ci kanam

أربيا جهنا إن مني دا تاني سنة لا. كفران. دي كتير دا ميدا مملو. directement sur défenseur ah, bu comme ko récupère wan nañ ko mu dem mu dem toujours l'on passe directement sur numéro 7 bu comme ko alu len avantage demal demal arbitre bay na la nga dem demal mu ngi dem ah. toujours wa komiko capitaine bu komiko dugal na profondeur attention oh, bu jallo bu jallo heureusement ba legui ah. waa Merina Bambilor téye nañ bal bi daal droit bu Merina Bambilor loo de passe directement ak central bu Comico jox na ko góol na ko góol bi dem naka si latéral droit bi ñu ngi koy joxante capitaine bu bal na bal bi ñu daal di koy contrer numéro 18 bu bu Merina Bambilor attache au la la jolie passe ba léegi ah, Comico ñu ngi dem ah, numéro 7 bu Comico 7 bu Comico ko numéro 2 bi attention oh là là ba léegi ah, waa Comico ñu ngi doxal numéro 7 bu Comico toujours mu ngi dem mu ngi dem jox ko numéro 17 bi oh mi-temps pour l'instant temps mi-temps pour l'instant 0-0. entre Comico ak ki nga xamante ni ah, moom mooy ah, Merina Mambilor ah, toujours zéro bi partout kenn ku si ne yaa ngi jéem a ut pexe boo dugalee mënoo fexe ba dugal kon donc mu ngi noonu li moo fay xewoon si stade Ngalandou Diouf premier mi-temps bi jàll na ku si nekk yaa ngi doon xëcc pour dugal waaye mënoo dugal dama leen di bàyyi rek donc ñu dem préparer li nga xamante ni moom mooy deuxième mi-temps bi bu ko defee mu ñëw ak yéen sama si kanam.